maaleykum sama gars yi sama maaleykum waa àdduna mais félicitations à tous les sénégalais ci qualification bi waxoon naa fi ne bañ ñu jëlee coupe d'Afrique mën leen Sénégal moo jëlaat coupe du monde bi moo jël coupe du monde bi di ñëw moo jël coupe d'Afrique bii di ñëw 2023 bi coupe du monde 2022 bi Sénégal la ko jël coupe d'Afrique 2023 bi Sénégal la ko jël te Sadio Mané moo yëkkati ñaar yëpp te dama leen wax leen gaay yi affaire yi euh, buñ ko tegee ci logique rek. Sénégal il est temps pour un pays africain jël coupe d'Afrique te li ñu manqué woon bu ñëwee mbir wàllum jongante ci àdduna lu jëm ci sport ak football ak musique ak entertainment Afrique nit ku ñuul moo ci mën ci àdduna bi li taxoon duñ mun ñu woon sori mooy logistique ak encadrement bu baax am pays africain doon ñu ngi ko am te seen gouvernement yi dooñu woon nangu di investir lu toll noonu ñu xoolee Sénégal suñu stade bi un de deux cinq milliards la ñuy def suñu football football bi rek laa de cinq milliards pour juste euh, affaire logistique euh, déplacement frais de transport euh, frais de voyage nu tudd sax prime de marchés ay hôtel ay yooyu noonu xam bien-être des joueurs cinq milliards amul kenn ci ci football africain ku koy def européens yi sax maam dañuy jongante ñoom ci loolu kon boobu wàll boobu wëy na bu dee lool rek ragaltu ragaltuma ko le bien-être des joueurs pour que ñu mën a performer loolu loolu sénégalais am nañ ko mooy équipe sénégal am nañ ko deuxième bi mooy bu ñu xoolee li li li li li pays européens yëpp am mooy dañuy am trois grands joueurs ci seen équipe yi dimension mondiale di jël des champion di ko remporter wala affaire yooyu sénégal am na ko sénégal am na Mendy jël na Ligue des am na Sadio Mané jël na Ligue des donc Mendy a tout gagné a joué toutes les compétitions tous les compétitions les plus grandes compétitions du monde médigé na ko Sadio Mané waxi nopp ah nga am Kole Kalidou Koulibaly défenseur defenseur dimension mondiale Barça ko xëccoo bëgg ko ñëpp bëgg ko buy fubal nga xam ni kii dafa assurance nga xam un Idrissa Gana Gueye qui qui jour à Paris nga am des joueurs moyens comme ay euh, euh, Abdou Lahad jàlloo nga am Sabali am ñeneen ak ñeneen soay loolu boo gëmul sa bopp kenn du la gëm man yaqeen laa ci am ku ma gëm baax na ku ma gëmul baax na nañ ci waxaat Sénégal coupe di monde bi kenn mun ta wax ba du ko jël kenn laa la wax ne kenn mënu ko mënu ta wax gëm sa bopp la su ma nee kenn nag nit moo tax may wax waaw nit laa wax de wax ma keneen nag waaw bi ci topp mooy coupe d'Afrique bi 2023 bi sa Sadio Mané dama dina ko yëkkatiwaat 2023 bi ñoo ko moom bu leen sonal seen bopp loolu lay am 2023 bi ñoo jëlaat coupe d'Afrique bi 2022 coupe du monde bi ñoo koy jël te yàlla fi yàlla bàyyi ba ba ñu fekkee ko incha allahu rabbi gëm sa bopp laa ko teg gëm équipe nationale di Sénégal gëm ne pré jot na après soixante treize ans xama soixante quinze ans d' organisation benn pays africain jël ko dafa jot soo ay ñun nit ñu ñëw dañoo war xam kuñ door gëm suñu bopp affaire mentale la ci xel mi la bu gëm-gëm bu ñu am bu jël coupe d' afrique bi ñëpp ànd ci équipe nationale bu ñu ko amee coupe du monde bi kenn mun tax du ñëw te day ñëw man boo leen ko gëmee naa ko boo gëmul man gëm naa ko